jullit yi mbokki taalibe bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di nuyu ci kàddug seex Muhammadul Maamun di yëkkati sunu kàddu ci kàddug seex Muhammadul Maamun waaye fa ngànt yam foofee lañu ñu tàmbalee waaye nag da di ndigal loo xam ne mëne su ko delloo loolu moo tax ñu bëgg a ñëw ngir digtal leen kàddu yi nga xam ne moo jóge ci Cheikh Mouhamadul Maamoun jëm ci njaboot gi yépp kàddu ya nag du gudd ndax li fi jaar lépp mat na sëkk sëriñ bi nee na li fi jaar lépp mat na sëkk waaye da koy tënk ci ñaar rek mooy kàddu sant ak kàddu coññee kàddu sant yi nag sëriñ Maam Mbàkke wax na ko léegi nee na ka muy jiital ci cant gi mooy as-Seex Muhammadul Muntaxa moom day ku yëg waa kër sëriñ Mbàkke Kanni la ku yëg waa kër Serigne Kanni la nee na loolu njabootuk sëriñ Mbàkke gi yépp xam nañ ko la ko dale ci euh, ñim jamonoonteel ci xilaafa gi ñëpp xam nañ ne Seex Muhammadul Muntaxa ku yëg njabootuk sëriñ Mbàkke Kanni la waaye nag moom noonu la mel ci bépp taxawaay boo xam ne bépp keno boo xam ne ci kenoy Serigne Touba yi ci nga bokk Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na taxawaay boobee moom la cee taxawee kon Serigne Mouhamadou Mamoun nee na mi ngi koy sant di ko seereel mbokk yëpp di ñaanal yéen ñëpp ngeen ñaanal ko mu yàgg fi lool ndax nee na yéenam kawe na lool ci jëmmal njàngalem sëriñ Touba waaye ci jëmmal euh, euh, euh, programme Serigne Touba bi nga xam ne moom la bëggoon jullit ñëpp tax tënku ci waaye mu ngi ciy teg Serigne Cheikh. ibnu Cheikh Abdoul Khadir Serigne Mamoun nee na mi ngi koy sant bu baax mi ngi koy sant bu baax a baax a baax waaye nee na mi ngi sant njabootuk Serigne Mboussobé te bu ca tuddee bàyyi sëriñ Bousso ba ngaaj mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Serigne Mboussobé nee na mu yóbbaale njabootuk Serigne Mboussobé gi yépp Serigne Mamoun nee na mi ngi leen di sant bu baax ndax Mbàkke ak Mboussobé yépp seen taxawaay dëgër na lool fés na lool nee na ci woote bii nga xam ne moom la njabootu sëriñ Mbàkke woote woon kon nee na da kenn ku nekk day tudd bopp ya rek waaye ñëpp teew nañ ci bis bii ni ko sëriñ Mbàkke yi waxee it sëriñ seex xalifa sëriñ Mbàkke Madina muy sëriñ seex Bambaali sëriñ Maamu nee na mi ngi koy sant bu baax te cant gii mu koy cant it magam yu baaxee buñ ko fekke woon noonu lañ koy sante ndax xam nañ yëg gi mu yëg njabootuk sëriñ Mbàkke Kandi gi waaye noonu la koy feddaliwaat ci kàddu yi it sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu nee na mi ngi koy sant bu baax moom day bis beeg ñàkk nekk bis bi yëpp yëgeel gi da koy wane ci seen taxawaay yëpp kon nee na mi ngi koy sant bu baax di ko seereel mbokk yëpp sëriñ sëriñ Mbàkke yëpp waaye mi ngi sant it mboolem njabootuk sëriñ Mbàkke Kànni gi sëriñ Maamu nee na mi ngi sant mboolem njabootuk sëriñ Mbàkke Kànni cant ga nag du ko gën a feddali ne la ko dale ci sëriñ Seexu ba sëriñ Basiiru nee na lu ci njabootoo nee na sëriñ Maamu nee na mi ngi lay sant bu baax nee na de bala ngaa xam dëgg-dëgg njabootu sëriñ Mbàkke nee na mooy nga toog ndeke siis bii mu soog toog nee na ci ngay xamee seen taxawaay bu dëgër seen bennoo waaye seen bëgg lu baax waaye seen bëgg fësal njàngaleeb sëriñ Mbàkke Kanni ak taxawaayam waaye la ko dale ci soxna maam euh, Kanni waaw soxna ma soxna Faat Njóogu ba ci soxna maam Kanni mooy ñi ci satoo ci jigéen ñëpp sëriñ maamu nee na mi ngi leen di sant nee na dara umbugu ci seen taxawaay lépp lu ci waay def rek xam na ko yëg na ko waaye nee na xam na kii ngeen koy defal ndax la tax ñu wooteel ko bis bi mooy lu mu liggéeyal sëriñ Touba moo tax waaye nee si sikkuut ne lu ci waay def sëriñ tuubaa dana nangul sag taalibe nam ko nangule woon Serigne Mbacke Kane kon nee na mi ngi sant bokk yépp waaye ku ci mel ne Cheikh Ahmadou Rafaay ak Serigne Sidi Mokhtar ibnu Serigne Abdoul Khadir moom it teew na ci sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax ak njabootu sëriñ Abdul Xaadir gi yëpp njabootu Seex Muhammadul Murtada léegi dañ fi jógee at mu jot noonu lañ koy toppoo nee dañ koy ànd dañ ànd ak ñoom ba jeex tàkk sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax waaye it mi ngi sant njaboot taalibe sëriñ Mbàkke Kanni yi muy waa Saareen ka ca jiital mooy sëriñ Moodu Saar sëriñ bi nee na ñëw na léegi di wax kóllëre gi nga xam ne moo doxoon diggante sëriñ moo du sa euh, way juram ak sëriñ Mbàkke Kanni daa àgg ci sax waxal boppam ne euh, bu fi ab gent desoon sax gent boobu la ñu topp ndax ñun boolewuñ sunu bopp ak sëriñ Mbàkke waaye sëriñ Touba moo ñu booleek moom nee na sëriñ Mamoun nee na mi ngi koy sant bu baax teew na fi ànd ak waa saaren gi yëpp kon daal nee na fa cant yam wala fa mu tàm fa foofee la tàmbalee di cant ñëpp ak waa Mbuur sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax nee na gannaaw cant googu it mi ngi gën a soññaat boppam waaye di leen gën a soññaat di xam ne ab liggéey la boo xam ne sëriñ euh, Sidi Moxtaar fàttali na ma sëriñ Mbàkke Daaru moom it bokkoon na ci ñi sëriñ Maamun waxoon ñu santal ko ko bu baax muy Serigne Mbacke Darou Serigne Mame Mbacke tudd na ko léegi waaw Serigne Mbacke Darou moom it jàmbaar la lool taxawaay bu dëgër la am ci waa kër Serigne Mbacke ci màggal gi waaye ak sax lu jiitu màggal gi Serigne Mamoun nee na mi ngi koy sant bu baax a baax waaye nee na mi ngi leen di gën a soññ bu baax te xam na ne soññ boobu mi yéen a ngi ci ndax lii ngeen taxawal nee na nit mën naa. gën a rëy ab famille te du ko mën a taxawal waaye nee na nosu gi ngeen nosu boole seen bopp ndax kat bi leen yàlla boolee ba noppi da ngeen a boolewaat seen bopp def ko genn guum di yëkkateendoo di dóorandoo moo tax ngeen mën a sottil lu rëy rëy rëy waaye na loolu bu leen ci dara jëlee ndax kat nee na yonent yàlla Suayb ba ko ay noonam di pexeel mënaluñ ko dara luñ ko wax say noon rekk ñu jaaxal walaw laa raxtuka lara la rajamnaaka wa ma anta alayna bi aziz nee na nag takku gii ngeen takku la fekk yéen ngi nga ci kenn du leen mënal dara te lu ngeen sumbu ngeen ko daan loolee mi ngi koy feddali bu baax ndax xam na seen pas xam na seen yëg-yëg waaye xam na seen taxawaay waaye nee na lu ngeen ci def rek na ngeen xam ne ki ngeen koy liggéeyal muy sëriñ Bakki Kanni koo koy dafa dàkkoon Serigne Touba. fa tànk yi sëriñ tubaa doon doxee moom la sëriñ Mbàkke dàkkoon sëriñ tubaa muy alquran ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Mbàkke nag alquran kenn mënu ko ci waaye mbindam sëriñ tubaa mi it daa bokkoon ci ñu koy sotti kon nee na foofu ku fa dàkk sëriñ tubaa da nga ko jot moo tax nag nee na yoon wii ngeen aw amul benn sikk ne bu ngeen ko teggiwut ne leen wóor ne lépp lu ngeen di mébét ci àdduna ak àllaaxira da ngeen ko am ndax sëriñ Mbàkke sëriñ suñ sëriñ Touba moo ko defal loolu nee na nag mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ tuubaa xam na mboolem taxawaay yu dëgër yi ngeen def yépp ci bis bi lu ci waay def rek xam na ko am na ay tur yoo xam ne dafa ma ko siteel ku ci mel ne sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Maam Mbàkke tudd na ko léegi waaye nee na dañoo xam kan mooy sëriñ Mbàkke moo tax seen pas-pas bu dëgër boobu ñu ñu yore ko ndax ku ñam dara ci xam sëriñ Mbàkke na mu doon liggéeyal sëriñ Touba waaye meleen ku diggam ak boroomam nee na loo koy defal da nga ko xeeb nee na mi ngi leen di sant bu baax ndax day ñoom day ànd nañ ca ànd ba gën a rafet lépp ñun ñëpp mën nañ koo seere la ko dalee ci sëriñ seexu ba seex Muhammadul Basir nee na ñoom day deseele tuñ tuñ leen dara ndax koo ci mas a gis kenn ci ñoom danga gis moroomam sëriñ Abdoulaye doon na ko nettale diggam ak sëriñ seex sëriñ sëriñ Mbusoobe ca euh, bi karaw gi sëqee nee na sëriñ Maamun moo ko wat nee na loolu nag la muy feddali mooy ànd guñ àndoon loola nag nee na mi ngi leen koy gën a soññaat bu baax ngeen xam na ne yéen a nga ca waaye na ngeen ko gën a dëgëral na ngeen ko gën a sàmm bu leen fexe mukk ba seytaane dugg seen biir nee na lu ngeen man ci ànd te ànd nag loo koy rafetal mooy lépp loo yéene ci sa biir sa moro loo yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom nee na lépp loo yéene sa bopp nanga ko yéene sa moroom lépp loo gis ne war nga ko wax sa moroom rek te muy dëgg nee na na nga moom wax ko ko ndax nee na ñoom de loolu lañ doon ànde ñoom nee na loolu lañ doon ànde ndax nee fii mu toog bu fi seex sëriñ Amdul Moustapha nekkoon loolu lay wax Cheikh Mouhamadul Fadil loolu lay wax sëriñ bu soobee loolu lay wax ba topp ko ci ba sëriñ Cheikh moo tax fañ jaaroon nee na du ci teg tekki tekki benn tànk foofee lay jaar te foofee mooy yoon wi nga xam ne mooy yoon wi gën kon nag mi ngi soññ góor ak jigéen yépp di leen wax ne bu kenn tekki seen sa laxasaay ndax liggéey bi nee na yëmul rekk ci màggal gi jumaa ji ci la bokk waaye sax jumaa ji war nañ koo weesu ndax dëkkub sëriñ Mbàkke bii sëriñ Mbàkke ba mu koy sanc ñaar rekk taxoon mooy jàng jàngale ak liggéey jàng ak jàngale ñooy ànd benn ak liggéey nee na loolu nag kenn mënu koo jëmmal ku dul ndax ñoom seen wàllu wéy na dañ fay nekk rek di leen gunge waaye na ngeen xam ne lii seenub liggéey la te ku ca man nag danga raw ba faaw mu ngi leen di ñaanal bu baax daal nee na ngërëm la sëriñ Mbàkke amoon ci sëriñ Euh, Serigne Touba nee na ngërëm loole yàlla na leen ko Serigne Touba defal ci bis bii nga xam ne moom la woote Serigne Mamoun tamit nee na mi ngi sant bu baax Seex Basiiru Buso moom Serigne Mbàkke Kanni moom day xam ngeen na ngantu dëgg tax teewut waaye ku ko xam xam ko ci wetu Serigne Mbàkke Serigne Mamoun Buso mii loolu nag ñoom ñëpp la woon waaye nee xolam. ak xelam yépp mi ngi fii waaye ma nga ca moom nee na mi ngi koy sant bu baax sëriñ Bak sëriñ Basiiru loolu nag daa baax di ko wax waaye ñun ñëpp xam nañ ne benn rek lañ ñoom ñoom njabootu sëriñ Bàkki kàndi gi benn rek lañ moo tax ñun benn rek nee na moo ñu jig benn rek moo ñu jikk waaye cant gi it nee na ma ngi ciy njëkk a sëriñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo jiite njabootu sëriñ sëti sëriñ Bàkki Kanni yëpp sëriñ Sidi Mokhtar nee sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax ndax gis na taxawaay bi gis na yitte ji mboolem lu ci waay jëf rek sëriñ bi nee na xam na ko waaye nee na mi ngi leen di sant te mi ngi leen di ñaanal ci barkeb sëriñ Touba lu ngeen ci def rek yàlla na fawxa seen njortu ngeen am ci ngërëmal sëriñ Touba waaye nee na ngi sant yi sëriñ Abo Mbàkke moom Serigne Mouhamadou Fadel ak Serigne Fadou Serigne Fallou Bousso moom Serigne Abdoul Kharija Serigne Mamoun nee na ngi koy sant bu baax ak Serigne Fallou Bousso Cumbuleen loolu sax daa waxoon ñu mujje ko ndax nee na diggante Serigne Massamba ak Serigne Mbacke benn lañ njabootuk Serigne Massamba njabootuk Serigne Mbacke benn lañ. ndax ku leen xam ñoom njabootu sëriñ Mbàkke gi xam nga leen ci njabootu sëriñ Masamba nee na mi ngi sant bu baax seex Cheikh Mouhamadul Fadil daa waxoon loolu ñu mujje ko ndax sëriñ Mbàkke yi sëriñ Masamba sëriñ Masamba ay sëriñ Mbàkke loolu ku ñëw ci seeni bis danga ko xam danga ko yëg dana boo ko boo ko gisul sax maanaam danga gis ci seen biir ñoom sëriñ bi nee na nag loola mi ngi ci sant yàlla bu baax nee daal mi ngi sant yàlla te di leen sagoo nee mi ngi sant bu baax it sëriñ Abo Mbàkke Daaru Salaam sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax ak sëriñ Cheikh Abdou ñëw na fi moom it kon daal euh, sëriñ bi nee na kàddu cant yooyu la doon soññee di leen ko fàttali waaye di wax ne it mu ngi leen di gën a soññaat bu baax nee seenu bennoo seen taxawaay seen ànd sëñ bi nee na xam na ko bu baax ne te nee na balaa nit a xam seen ànd nag nee mu toog fii fii mu toog te ñu neex a nekkal ngeen nee na nit ñu neex a nekk loolu moom moo ko waxa nee na nit ñu neex a nekkal ngeen ndax ñu topp ndigal ngeen waaye nee na ndigal loolu nag ngeen topp sëriñ Mbàkke looloo ko mayoon euh, ak taalibe ci sëriñ euh, sëriñ Touba moo tax nag yoon wii ngeen nekk nee su ngeen ko wàccut amul benn sikki ne kenn du leen appelé ci Serigne Touba te kenn appelé wu leen ci kenn appelé leen ci nee na nag mi leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom sàmm leen euh, te di leen fàttali bu baax liggéeyub jumaa ji nee na liggéeyub jumaa ji mi ngi leen koy fàttali bu baax ñor na ko lool na mu ñore woon magam yu baax ya nee na mi ngi leen koy fàttali bu baax kon nag xam naa lott nañ lool ci jottali kàddu Serigne Mouhamadou Mamoun waaye ñu ngi koy jégalu xam naa lu ci gàtt rek ci ñu yàlla bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf bu sa bali mel na ni mat na kon fooy tollu tàlloxi sëriñ bi ñaan waaye li ma doon wax léegi juróomi saako sama yi sëñ Abo Mbàkke mii sëñ am sa mbàkkam si baat moo ko jur léegi nii rek fa taarakallahu mel na ni jàpp na na ma ci liggéey boobu ñu ngi koy seere bokk yëpp ñëpp dégg ko mel ni saa rajo yi lu ma sa nangu ñaan fu ay toll rek tàll loxo sëriñ bi ñaan bii du jotul de bii dafa am problème de xamaa li nga wax nga jot ma ko ma jot lu ko rek ñëwal kaay kaay nii bismillah xam naa ñu ngi jégalu bu baax suñ Cheikh Fatma sëñ bi daf ma laa samp sant loo woon lool waaye nag doomu aadama moom yàllaa ko binde noonu waaye nee na mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay sant bu baax a baax a baax nee na lii rek ak yéeg la ak sëriñ sëriñ abo sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax déglu na waxtaan wi dégg na ko bu baaxit waaye nee na mi ngi lay sant ci taxawaay bi bu baax a baax yàlla na la suñu borom sàmm te yéene ji nga wax fii suñu borom sottil ko tam gën tam gën dam amee na gën a rafete ci barke Seexul Xadim tañ bokk ñun ñëpp jërëjëf waaye tool tàll la ko sëriñ bi ñaan nanu maasa wax amin sëriñ baa ngi ñaan de lu waaye bëgg du ko fas jërëjëf bu sa amin yàlla na teew déwén ay déwéni déwén yu bari barka borom Tuubaa amin allah ji fal bu sa asan jërëjëf al ustaas amin nangu leen ñaan amin amin ci barka borom Tuubaa aju yëpp yàlla na faju kenn bañ a may faju amin amin amin ya rabbal alamin amin amin kenn ku nekk nga ne leen jox la ko ni ko bal maq reekoon